وامضي waaw loolu moom lu baax la macha allah parce que jigéen moom danga ngaa war di sol lu jot wax dëgg yàlla euh, même bu dul màggal bi sax jigéen dafa war di sol lu jot ndax loolu mooy war a fi jigéen. moom da ngaa war a naturel daal pour man naturel daal moo gën ci lépp quoi. non man aw ci benn problème ndax d'ailleurs man loolu du sama comportement sama habitude. xanaa ñu jëfee ko rek ndax màggal gi da du euh, daa doonut po borom tëddut ci ab lal di nelaw boo am ko dafa lëggéeyal sunu borom tabaraka wa taala bu am ngërëmal sunu borom an ngërëm am ngërëmal yon yontu yàlla Muhammad rasulullah am ngërëbaay ngërëmal saaba yi am ngërëmal gaayu baax yëpp kon ku fi ñëw na nga ko jàppee ak jaamu yàlla. te jaamu yalla mom set moko waralal ak tege ci yoon jeffi ndigal yi dal mo gën ku ko ci def mom do ko reccu li khalifa bi santaane mom moy li yalla santaane rek waaw sol do mom la yalla santaane yonentou bi santani ko seigne touba santaane ko ah lolou mom ndogal bu baax la mom man mom mang kay rafetlu bu baax a baax parce que touba ko fi ñew da nga wara yiw def la fi nit ku yiw mais di pose xef ak di def yu kenn xamul ah, ne di ñëw si dëkk lislaam loolu moom dafa jaaduwul sax maa ngi koy rafetlu lu baax a baax a baax. loolu moom dëgg la moom ak góor ñi nangu seen lam yeeg di nangu seen takkaay Touba boo fi ñëw da ngay def ndif di watu ay dégradé yooyu sax dafa jaaduwul defal yëfi nit ku yiw ndax doomi nit ku yiw day def defi yëfi nit ku yiw loolu moom maa ngi koy rafetlu bu baax a baax. moo leetu ma ay mees leet naa sama leetu muuraay muuraay bu yiw dugg ci jumaa jafa laa moom dëgg la moom xalif général moom lu mu wax dañ kaa war a waaw dégradation bi dañ kaa war a bàyyi Dakar tente yi ñu bàyyi ko Dakar ñu wot ñëw fii watu ndel ba set su ma ñibbee léegi damay jënd leen set I'm not leaving